jërë ngeen jëf mbokk ñi siiwar ñu ngi leen di nuyu di amaan mbégte jàkkaarloog yéen di nuyu suñu kilifa di nekk suñu kilifa day di ñaan réew mi du Sénégal yàlla na suñu borom doole jàmm di nuyu suñu woy dawlu yàlla suñu borom yërëm leen taxaar leen ajana di nuyu ñi nga xamante ni caabi dina féete ginnaaw yal na sunu borom mayaat indépendance ba ñu ñëwaat fii ci seen njaboot tey nag ma daral koo xamante ni kenn doot ko présenté ci réew mi mu di Serigne Abdou Sakkour borom kuréel gi damay wax ni réew mi heure bu tollee fii ci ay jaxasoo ndaw ñi xamatuñ fu ñu day baax nga jël sa micro taataan dem xool ñi nga xamante seen xam-xam dafa wàcc nga mën a waxtaan ak ñoom sëñ bi dañuy bàyyi nga nuyoo la suivre euh, alhamdulilahi alladi xalaqa al insana wa yuxyi bihi azmana wa axshaba al bustaana wa andaja al athmaara alhamdulilahi alladi bi amrihi bada al qamar wa nuuru fi dunia ntachar alhamdulilahi alladi bi ilmihi yalamu maa yuxfi lbachar wasalaatu wasalaamu ala alladi wulida xayra waladin wa xayri walidin bi xayri waladi waaw mbokki jullit yi maa ngi leen di seetaan maa ngi leen di ziare bu baax di ziare ñi nga xam ni ñoo ñuy suivre fii ci télé euh, People 221 mm-hmm. di nuyu sama naataango ki mu jëwriñ ji ma toogal nga xam ne mhm. moom ndeysaan day ko baax di la ziyaare bu baax a baax di la ndokkeel ci ñëw bi di leen jéggulu coono yëpp rek am na solo si ma njëkkee fan yi ñu gis ni réew mi daanaka xaw na yëngu coow li bari ñu jëm ci ay élection présidentielle bala ma ñëw ci waxi présidentielle bi euh, naka nga gisee dialogue bi nga xamante ne Macky Sall woote na ko euh, jëmale ko ci opposition bi. waaw jërëjëf man nag xam naa ni duma faral di kii waaye yooyu Euh, bu fekkente ni ci waxtu waxtaan rek leneen woo te ñi muy woon ñëpp ay citoyen leen réew mi ñor leen gëm naa ni war mën nañoo dem wuyu ji ko bu leen waxee loo xam ne arrangé na réew mi ñu ànd ci ak moom bu leen waxee lu arrangé wu réew mi ñu bañ caa ànd ak moom ñu res ndax waxtaan moom bépp mbir ci waxtaan lay mujj. guerre mondiale sax ci waxtaan lañ mujjee toog toog ca Versailles waxtaan trouver solution kon bépp mbir ak xeex lu mu ci waxtaan lay mujj. nit ki nag fa muy mujjee mu njëkkee fa day gën ci moom ndax buñ demoon ba lànk ku ne fipp jaar fenn réew mi jaxasoo ku ne ne manum lëmb la man maa war man maa mën a defar réew mi jox leen ma réew mi maa nangam te tooguñu waxtaan it kenn ñoom ñëpp mënu yoroo yorandoo réew mi faw kenn la ko ci yàlla jox te ka ka ko yàlla war a jox pare na ci pare na noppi na ba pare kon nag li am solo rek mooy jéem a dem wuyu ji bañ cee ñaaw bu fekkente ni ña ngay waxtaanee lu amal njariñ réew mi ñu def ca liggéeyal réew mi ndax ñun suñ tànn bu metti bii ku ne ñu ne kii moo fi baax kii kii moo fi baax kii la ñu war a jël lépp rek bëgg bëgg ku ku bëgg réew mi ba mën a liggéey réew mi moo tax ñu tànn. bu ñu demee nag ñu xam ni ki fi nekk ki ñuy euh, kii li muy woote nii amal na njëriñ réew mi ba tey day gën a yomb ci ñun rek ñun ñi nga xam ne du ñuy producteurs ñun ñooy victimes yi. Mm-hmm. waaw xam naa am na solo naka nga gisee taxawaay Ousmane Sonko bokk na ci yi nga xam ne ñoo mujjee dugg ci politique mai coowam bari lool waaw ah, Ousmane Sonko nag euh, taxawaay bu bu bu bu bu yéeme la am ci esthétique politique moo tax jamono yi muy doog a jug àndoon naag mbir yoo xam ne képp ku ko laaloon dina am jafe-jafe waaye fan yi nii maa ngi maa ngi ko doon wax sax ci sama kii yi mujj. Mhm. ñi am baatin ñëpp ñi am baatin ñëpp xam nañ ni élection yi bu doonoon deux mille vingt et moom moo koy jël. Mhm. élection yi bu doonee deux mille vingt cinq moom dina ko gagné waaye élection yi bu déwénee 2024 du du ko gagné. waaw baaxul ci moom chiffre 4 baaxul ci moom. boo xoolee Macky Sall bi mu commencé maanaam convoqué Ousmane bi bi ma xool gis bi bi mu commencé convoqué Ousmane Sonko ci chiffre 4 yi ndax moom chiffre 4 problème am la baaxul ci moom. bi ko commencé convaincre ci convoqué convoqué ci chiffre 4 yi la nga gis ay mbiram commencé di di di wàcc par ndànk-ndànk. ngay gis nii bi mu ko euh, convoqué ci le 16 la ko convoqué woon. 4 boo ko multiplier ci boppam ñaata lay la lay jox 16 la lay jox 4 multiplier par 4 mu jox la 16. Mhm. mu convoqué ko le 16 ko mujjut ko le 16 4 nga multiplier ko waat ci waat ko ci boppam ñaata la lay jox mu convoqué ko beneen nu mu mujj def toj otoom jël yóbbu mujjut fenn. Mhm. biñ ko convoqué la 30 biñ ko convoqué la 30 biñ ko attee yàqalu ko dara biñ ko convoqué la 30 biñ ko attee. yàqalu ko statut politique am yàqalu ko benn loo xam ne war na koo mën a tee doon candidat waaye gis nga biñ koy convoqué waat la kañ lañ ko convoqué le huit huit multiplié quatre multiplié par deux huit la lay jox. Mm-hmm. Hmm? xoolal procès Adji Sarr bi kañ kañ lañ ko kañ lañ leen convoqué. waa foofu noonu fa laa bëgg a ñëw sax le seize. le seize naka nga gisee projet boobu. lu mystique la lu mystique la te Ousmane soon ko ne bu fekkente ni am na ñu ko jege ci xam dara dara ci wàllum baatin booy boo ñu jug ci bu baax ndax fii gars yi gëstu nañ ba xam ne suivre kat yi feeg ñu ngi ko ci euh, lalal ay ndëgg sarax ci tëj ko la ñuy mujj te xaddu dam bu fekkente ne am na ñu ko jege te nekk ay kilifa te xam dara ci wàllum wàllum mystique nañ jéem a taxaw xool li koy gàllankoor ci suivre kat boobu ñu jénneel génneel ko ay sarax ñaanal ko ci yàlla dindal ko loolu gàllankoor yooyu dañ nga xam ne bu demee dara du ci mujj. Mmh. waaye jamono jii nii nii mu nekkee bu si bu demee le 16 dina am jafe-jafe le 8 sax bu ci demee mën na am jafe-jafe d'accord parce que moom chiffre 4 dafa am jafe-jafeem la. xam naa nag ñi ko jege ci wàllum asaraar ci wàllum baatin duñ ko ko wax. waaye buñ ko buñ ci doon bàyyi xel di ci jéema taxaw gëstu di ko jéem a dindi dina am solo lool. d'accord am na solo mu doon ab jàngat boo xam ni fa la ñuy commencé muy wàllu actualité dama ñëw ci li nga xam ne mooy euh, ñu bari dañ naan ñaan buntu bi mooy seet. Euh, hmm. tey nit ki est-ce que mën nga koo ñaanal te seetaloo ko ak ci yan anam lañuy seete parce que bëri na ay ay ay façon jërëjëf yaa ngi may doog a laaj nag ci lu ma gën a neex mooy wàllu xam-xam ñaan dafa bari ay mbir dafa bari ay mbir ndax nag seet nag mooy bunt bi nit ku nekk bala ngaa dugg ci wàllum ñaan war ngaa mën a xam seet xam ilmul adat xam ilmul xuruf ba pare doog a dugg ci wàllum ñaan léegi nag seet dafa bari ay façon am na seetu la boo xam ni ci suuf lañ koy seete mm-hmm. seetu ramlu boobu li tax ñu koy seetee ci suuf nit ki lépp loo ko xoolal ci suuf bu dee man ngaa seet ci suuf. da mhm. nga koy gis ndax nit cosaanam mooy suuf. Mhm. wallaahu anbatakum minal ardi nabaata yàlla moo leen saxaloon ay ngeen nekk moo leen saxaloon ngeen nekk ay gàncax jóge ci suuf. Mhm. te yàlla ne suma yu'idukum fiihaa wa yuxrijukum ixraaja yàlla dana leen du du delloowaat ci suuf. daal di xalaxakum min turab yàlla moo leen bind ci suuf kon nit cosaanam suuf la. léegi nag booy laaj ay mbiram nga laaj ko suuf am ci information yu leer da gën a yomb. waaye boobu nag am na beneen bu ko gën a efficace. Mhm. mooy ki nga xam ne day seet ci wàllum ndox. Mhm. boobu tamit baax na ba tey am na ñoo xam ne ci këyit la ñuy seet waaye nag bi ko gën a efficace mooy nga yor turu yàlla. Mhm. di ko wér di ko wér ba yàlla may la kashf ubbil la bunt yëpp nga xam ne nit ki ngay jàkkaarloo jëwam bii rek xam lépp ci moom nga xam ne day ñëw toog rek du jar nga koy laaj wenn tur da ngay jàkkaarloo moom rek yàlla xamal la lépp ci moom nga xam ne danga koy mën a wax ba mu juddoo ba kañ sax lay faatu gàllankoor yi ne ci jaramam bi yëpp da nga koy mën a wax wax ko fan la ko dale ba pare man koo wax lan moo koy dindi bu dee dana dañ d'accord am na solo mm-hmm. euh, ma ñëw ci li nga xamante ni jamono ji boo xoolee ndaw ñu bari ñu ngi am jafe-jafe te benn problème dong la am mu di wàllu ubbeeku Euh, tey ci wàllu ubbeeku laa bëgg nga nil ma ci ay leeral. waaw ubbeeku nag dafa nekk mbir moo xam ni ndaw ñu baree baree bari bëgg nañ ko waaye ubbeeku faw mu ànd ak kaaraange. Mhm. ndax nit ki am na ci am na loo koy defal pour nga am na fu fu looy xamee ay mbiram xam biddiwam kañ lay fenq biddiw falam xam couleur xam couleur contraire am maanaam pour nga ubbi ko lu yomb lay doon. pour xam xam maanaam saraxam maanaam sarax bi nga xam ne moom lii la war a saraxe mhm. boo ko tegee ci mbir yooyu nga xam ne tey ji boo xamee couleur am nga xam ne bu doon tëjj entreprise couleur bu mel noona lay def maanaam tenue tenue de travail mhm. bu ko defee liggéey boobu ak lu mënti doon da réussir bu fekkente ni day lijjanti ji mbir nga xamal ko bisam ban bis la war di lijjanti ay mbir bis boobu bu ko xamee rek lu muy lijjanti mu échec moom day day jeex lu muy lijjanti bu sol bis boobu day sotti. Mm-hmm. wala muy lijjanti dara sol couleur sol sol couleur bi mel ni ab couleur am dox bis boobu dem lijjanti ji ko loola kenn mënu ko tee sotti. Mm-hmm. léegi nag ubbeeku dafa bari ay ay mbir yu ci nekk yu ci nekk. Mm-hmm. ndax nit ki mën nga koo ubbee ci ci sunguf. dajale ay sunguf yoo xam ne da nga koy composé lu mel ni was wasoor nga xam ne da ngay dem jëndee ko ay nangam nangam ay reen yoo xam yu bari la yoo xam ne da koy jëndee ay saari alxuraan. Mm-hmm. composé ko nga jox ko mu daal di ko loolu nag day fekk nit ki nga xam ne moom setut set gu mën a laalee alxuraan. Mm-hmm. wara boo ko joxee alxuraan ma mun mun ta assuré ni alxuraan ji nga koy jox mën nay taxoog set fu mu toll. Mm-hmm. kooku moom da ngay jaar ak moom ci sunguf loolu mooy gën a gaaw waaye nag alxuraan moo leen gën a gaaw ñoom ñëpp nag du seen morom. du seen morom alxuraan moo leen gën a gaaw ñoom ñëpp ndax alxuraan liñ ci mën nga cee tijjee nit ki ci maanaam doo ko jox mu takk doo ko jox mu sangu doo ko jox mu naan maanaam yow sa kurus gi ngay téye rek bàyyi ko ba mu tëdd ba yaxam yëpp benn yëngootut nga bàyyi ba biddiwam fenq biddiw bi nga xam ne moom ci lay falu ku ne am nga sa biddiwu fal. biddiw boo xam ne bu fenqee lu la ca nit defal day fa day jàpp nga bàyyi ba biddiwam fenq nga toog dóoral ko ay per bàyyi ba biddiwam di suuxaat ci fajar gi. nga dóoralaat ko ay per bu ko biddiw bi suuxaalee moom pare na moom lépp lu nekkoon ay gàllankooram day dañ ndax boobu yëngatootul dara yax yëpp jóge na mi ngi tëdd dina law xamatul dara ci boppam biddiwam fenq na moom munte jug def ci boppam def ci biddiwam da ci war ndax moom bu xamoon dara mooy jug jël kurusam defal boppam ci li war ci biddiwam waaye comme que munu ko nga bàyyi ba mu jug ay yaxam biddiwam fenq nga xam ni foofu am na opportunité bu bëri bu jugoon lu mu fa def rek day jàpp munu ko yow nga jug moom mu tëdd nelaw nga defal ko ko kooku amul sa fay mm-hmm. jamono ji fajar gi xarit biddiwam di suuxaat yow nga jugaat julli si woo pare jàppalaat ko kurus defal ko ko kooku moom day tàqali ko bépp gàllankoor bu ko daan bu ko daan lor xanaa kay li ci am solo rek mooy boo ko defalee ba pare nga wax ko ni ko sarax nangam ak nangam nga génn mu génn ko ay jafe-jafe jeex. Mhm. loolu daanaka jarul mu ci sonn at mu nekk mën na ko ci def benn yoon. Mhm. wala sax daanaka benn benn yoon ci ci ak dundam bu fekkente ni maanaam am na ko xam asraar dëgg dëgg ko ko mën a defal loolu. Mhm. Euh, bid ubbeeku moom jamono ji daanaka jafeetul bu njëkk la gënoon a jafe ka léegi. ba tey foofu noonu laay des ndax ubbeeku kenn mënu koo wax te doo wax kaaraange. ci mhm. wàllu kaaraange. waaw kaaraange nag dafa nekk mbir moo xam ne. Mhm. mbir mu doy la. ndax nit ki suñu borom daf koo bind. aar ko comme ni nga xamee ni tubaab bi bind téléphone bi noonu la ko aaree defal ko antivirus. ba dara du ñëw ci téléphone bi lu dul signalé na la ko bu yàgg balaa batterie bee jeex mu signalé la ko bu ci virus duggee mu signalé la ko doomu aadama noonu la ko suñu borom bindee da koo bind boole kook lu ñuy wax rawxaan rawxaan moomu nag dara du ñëw ci sa jëmm ji lu dul sa rawxaan signalé na la ko tey jii boo doon dox guddi nga dem bay jàdd ci am mbedd te mbedd moom am na lu fa nekk loo xam ne war na laa mën a lor sa rawxaan da la koy signalé nu mu la koy signalé mooy sa karaw yu bopp yi day taxaw ba sa yaram bi daw sa rawxaat ne la ah am na lu ne ci mbedd mii de demal ba ci rési mbedd mi nga jàdd fa wala bu fekkee benn mbedd bi kese moo fi ne te amoo yow loo mën a léemu dëppal nga dem fa nga fa nga fa nga guddi woon bër bi fanaan fa ba suba boo fa forcé nag da ngay jékki-jékki rek gis dara bu fekkee boroom fit nga mën ngaa jàll waaye bu dee nag sa bopp dafa oyof mën nga caa jommi mhm. wala ngay dox ba ci yàgg mbaam traversé la bu fekkente ne du mbaamum kese mbaam mi kat nekkul mbaamum kese am na lum rax sa karaw yi bopp yi day taxaw ba sa yaram bi daw sa rawaat ne la siñ kat nga da bokkut ak mbaam yaa nga daan gis déflation may ko mu jàll wala nga dëpp. wala fekkee ne dafa tëdd coono bul ko jéggi bul ko jaar ci kanamam bul ko jaar ci ginnaawam dëppal ba fa nga nekkoon nga fanaan ko ba suba wala lu mel ni muus loolu la suñu borom aaree nit ki waaye nit ki nag dafa am ak geneen kaaraange goo moom bu xamul lu muy léemu dara du ko mën a la ko suñu borom waaye nag wala yazidu zalimina illa xasaara dégg nga kon nit ki bu fekkente ne ñun yàlla suñu borom suñu lépp dañu koo defal ci alxuraan ndax nit ki bu fi fii ne maanaam benn ban bant boo xam ne ab reen la rek mën nga koo jël maanaam reenu xay wala xasum xay mën nga koo jël boole kook ay ay alxuraan defal ko ci kaaraange loo xam ne nit ku mënta jàpp ab karo di ko wokk ba mu bënn du ko mënal dara kaaraange moom daanaka nit ki bu ko bu ko amee dëggantaan maanaam mën naa bañ a tiit ci ak dundam ndax mag ñu njëkk ñi li ëppoon ci li ñuy jëfandikoo mooy kaaraange boo xoolee Cheikhul Khadim fekkoon na fi asmaaw tahlil gis nga ko ni mu ko bindee tur yàlla yi nga xam ne am na euh, tur euh, allahu ci alxuraan yëpp la dajale tuddee ko asmaaw tahlil fekkoon ne bu njëkkoon buur yi daan ko jëfandikoo moo ko ñëw xool xam ni lii am solo la ci kaaraange mu ko defaraat ko ndax kaaraange nit ki mënta dund te amu ko nga xool Ahmadu Rafaa yi bokkut ak ñii mu mag ma am def na ci lu am solo ci wàllum kaaraange si Amar Futi Taal ndax ñoom dañoo daje woon ak buuri cedd yi nga xam ne dañ daan jël nit ñi di leen not di leen jàpp di leen jaay léegi kaaraange yooyu nga xam ne ñoom moom lañ daan jël di ko bind boo ko xasee takk maanaam waxuma la luy raye waaye police police sax du la jàpp yor mhm. ko defaloon doomu aadama ak lu mën ci def police du ko moo ko defoon jamono yi muy xeex ne tubaab bi du la xanaa mu tiire la bal nga dee waaye ne di la yóbbu mënu ko du ko mën a def nga xam ne lépp loo xam ni doomu aadama bi da koy gàllankoor rek nit ki mën nañ ko ko fanqal bu loo xam ne mbir yàlla moom moo ñëw te kenn amu ci pexe loolu du ko mën a lor mm-hmm. ndax nit ki mënut a dund ci àdduna te amul kaaraange loolu moom c'est impossible. Mm-hmm. léegi nag da ngay gis nit ñu ni la tubaab yi duñ am kaaraange te dañuy simmi seen yére yi di dox ci place bi te dara du leen dal kenn du leen catu nangam nangam léegi nga koy kooku moom li nga koy wax rek mooy tubaab bi. alxuraan dafa ne inna shayatina la yuxuna ila awliyaihim seytaane day wax yu ay waliyam te ñenn ci tubaab bi dañoo bokk ci ñi nga xam ne seytaane mission seytaane la ñuy dox ci kaw suuf seytaane sonal mooy yow jilit bi nga xam ne da ngay tuub di def bàkkaar di yow lay sonal waaye tubaab bi nga xam ne moom mission seytaane nekkal ci kaw suuf moom seytaane moo koy aar te maanaam wàllum cat wàllum bët wàllum yooyu yëpp seytaane moo koy jël transmettre ko doomu aadama bi mm-hmm. léegi ab tubaab boo ko catu woon seytaane day lànk ko yóbbu ndax tubaab bi ñoom ñooy dooleel ngóor jigéen ñooy ñooy ñooy dooleel góor góor guy sëy ñooy dooleel jigéen ak jigéen guy sëy yooyu yëpp te loolu ay mbiri seytaane loo xam ne seytaane moom ma bëgg mission yi du dox ci kaw suuf léegi fekkente ne tubaab bi leen portel combat yi dañ a catu ba kan moo koy doxal mission yooyu kon seytaane moom mooy transmettre ay cat wala ay bët wala ay làmmiñ di ko yóbbu ci jullit ñi waaye boo ko defee ak tubaab du dem loolu tax nag jullit bi am mission alxuraan yàlla jox ko alxuraan ne ko lii laa la jox pour nga aaroo ko ci cat ak bët ak lépp loo xam ne ab saay saay wala saytaane dana ko jël di ko indi ci nit ñi. Hmm. moo tax mu ne ko illa ibadika minhumul muxlisin ni ba ba mu waxee saytaane ne ko la am la ànd jahannama waaye dañu ko la aqudanna siratakal mustaqim ne ko illa ibadika minhumul muxlisin sa jaam ñi nga xam ne ñi ngi jëfandikoo alxuraan te di ko sellal ñoom mënuma ci ñoom dara jëfandikoo alxuraan nag mën nga ko bind takk ko mën nga ko jël sangoo ko mën nga ko naan ci ci nga xam ne ci boo ko mokkalut boo ko mokkalee nga di ko tari moo tax kaaraange dafa bokk ci li nga xam ne dafa gën a am solo ci doomu aadama bi surtout nag yow boo nekkee ci biir ñi nga xam ne ay tubaab lañ gëmuñu yàlla yow yaa war a gën a soxla kaaraange ndax foofa seytaane dafay wër nu mu ko neexee te seytaane buy wër lam yor ci ay musiba ak loor lor ko sotti tubaab yi léegi day xool ka nga xam ne ab jurit la te aar wut la koy sotti nag mu amee jafe mhm. moo tax ngay gis koo xam ne day nekk ci fi bërëb ci ci Europe di liggéey di di am teraangam nga jékki-jékki dégg ñu ni dof na wala ñu oto saaraan na ray ko wala nangam nangam ndax seytaane day yor ay mbiram yu bon di xool du gis comme mu ko transmettre foofu ndax ñafa nekk ay tubaab lañ ay mission am la ñu dox. léegi bu ko defee nag mu xool ab jullit boo xam ne moom aarut boppam mu sotti ko euh, musiba moomu nag bu la ko sottee fekkee yow aaru woon da indi jafe-jafe waaye boo aaru woon bu la ko sottee maanaam du la mën a wàññi dara. loolu mën a wàññi jërëjëf am na solo mu nekkoon sunu invité fii mu di Serigne Abdou Sakkour borom kurus gi euh, ma ñëw ci li nga xamante ni jamono ji sonal nañu bari yëngal na kër yu bari aussi tamit tas na sëy yu bari mu di feebaru impuissance sexuelle feebaru tële wàllu ngóor tey yàlla sunu borom dimbali la ci nga am ñoo ci dimbali ba ñuy jël seeni doom dénk la ko ci daara ji li nga ci am ci ay turandoo it yaakaar naa kenn xamul nu mu toll ci wàllu euh, néew kattan. Hmm. ngi wax nag lu am am solo te nag mu yëngal jamono ji lool sax nag yëngal jamono ji lool muy néew kàttan néew kàttan nag li koy waral dafa bari néew kattan hémorroïde da koy waral ndax hémorroïde ñaar la interne ak externe bi ne ci biir ak bi ne ci biti bi ne ci biir ngelaw lay nekk di ballonné sa biir bi nga xam ne doo mën a yàgg ak njàpp nga xam ne sa biir bi day balone rek foo toll di génne air bi ne ci biti ab picc lay doon boo xam ne sa buntu suuf lay nekk ci buntu suufu nit ki lay nekk buy dem wanag mu koy indil ay jafe-jafe dégg nga buy dem wa nag mu koy indil ay ay jafe-jafe wala muy wala muy nàcc dégg nga léegi nag buntub suuf boobu picc boobu ci nekk mooy waral soo te buntu suuf bi daa am ak relation ak sàkkara góor moo tax booy booy yëkkatee sa sàkkara bëgg mu dëgër buntu suuf boobu daa war a fermé wu ba air du ca mën a dugg bu fekkee picc bi da caa nekk nag boo yëkkatee sa sàkkara da gis ni buntu suuf bi day commencé metti di di metti ba sàkkara si du mën a taxaw dëgg ndax buntu boobu fermé wul ni mu mën a ni mu war a fermé woon moo tax ngay dégg suñ tubaa suñ tubaa lu bëree bëri da ngay moo tax it euh, bu fekkente ne biir bi nit ki bu góor bu yëkkatee sakaram biiram dafa war a dëgër dafa war a dëgër ba air du ci nekk léegi fekkente ne sa biir daa am air nga yëkkati sakaram nit ki di yëkkati sakaram biiram du mën a dëgër dëgër dëgëraay ga ca war ba sakaram mën a taxaw dëggantaan mooy war a sakara si di di yolom ñoo xam ne bu commencé jëflanteeg soxnaam sakara si day wàcc ba génnal boppam wala bu demee tuuti da gis ne day gaaw a boppam léegi nag da gis ni maanaam euh, leneen da koy waral it muy nit ñi fooy seen bopp fooy seen bopp nag li ko ëpp ci li koy waral ci nit ki mooy rab ndax dafa am saytaane boo xam ni mu ngi tudd miqlaas ndax fukki rab ak juróom ñoo am fukki rab ak juróom ñooy jàpp nit ki. léegi nag am na ci rab boo xam ni tamriix lañ koy wax boobu mooy ki nga xam ne mooy dundee sobe sobe lay dundee sobe sobe soo su muy dundee nag moo tax su jàppee doomu aadama bi. da koy fooyaloo boppam pour sobe da ca mën a génn mu ko dundee moom njabootam moo tax nit ki nga xam ne day fooye boppam da koy def bu paree mu metti ko lool ba mu jooy ni ëllëgee ni ma ko def waaye bis bu ko tamreex moomu jàppaatee ba jax-jaxal xolam day jékki-jékki mën na koo seetaan loo sax ay film di muy fooye boppam ba yëg yëg ci boppam man yi moom génn ca mu yël ko di ko dundee moom njabootam moo tax dangay gis ni nit ki da nga koy ñaanal di ko jox muy takk di ko jox muy naan te jafe-jafe yam amoon day gën a yokk parce que moom dafa am sobe kooku boo ko joxee alxuraan mu sangoo ko ay jafe-jafe day gën a yokk mhm. nga jox ko sunguf mu sangoo ko ay jafe-jafem day gën a yokk kooku fi ngay jaar moom mooy danga koy jàppal kurus tiil ko ko lu mat ñetti fan wala juróom-ñaari fan ba tàqale koog loolu ba notal ko loolu ba pare doo ko jox lu muy sangoo ndax tey jii bu ne da nga jox lu muy sangoo te tamriix moom mu jàpp ko bàyyiwu ko buy fanaan ci néegam tamriix day dem yàqu nga xam ne ndoxum kese lay doon bu xëyee bu ko sangoo du ko jëriñ dara bu dee lu ñuy takk bu ko bu ko bàyyee ci ndiggam buy buy nelaw mu ko yàq wala mu soppi ko tegal ko fa leneen nga xam ne day takk ba sonn jafe di gën a yokk nga xam ne kooku moom fa ngay jaar ak moom moom mooy da koy ñaanal ci course ñaanal ko ci course ba tàqale ko li ne ci moom définitivement doog koo jox lu muy sangoo nga xam ni mbir yooyu di ko gaar di ko di ko gàllankoor mhm. dootul ñëw mhm. loolu mooy ki nga xam ne day fooye boppam ki fooye boppam nag moom li ko ci mën a dal nag mooy dindi ngóor dindi ngóor ak góor comme ñi ngi wax ci impuissance li koy waral fooye boppam boobu nag li ko ci gën a gën a gën a mën a gaaw a dal mooy ak ngóor gu dañ définitivement mhm. ndax loxo dangar la saa bu ko dee jàpp ci sa awra di ko ci di ko ci di ko ci ko ci baram day dem ba awra sakra soosu sirit ga day dee dootul mën a taxaw même nit ki nga xam ne sax soxnaam day jël awraam di ko foyee moom day dem ba sàkkaraam day day faatu ndax moom masturbé wu benn baaxu ci fooy sa bopp bi ngay def ak bin lay defal ñoo ci yem. Hmm. benn baaxu ci. Hmm, léegi yooyu. Hmm? <laughs> léegi yooyu <laughs> yooyu xam naa ne koo bëgg a tere nag. <laughs> waaw moo tax léegi xale yi màggitaale màggitaale tuñ góor d' accord am na solo ma ñëw ci li nga xamante ne tamit moo di wàllu émorite wàllu émorite laa bëgg nga jël ma ci ay leeral ak naka lañ koy traité. waaw émorite nag moom. li liñ koy traité mooy garab yi daanaka doon naa ko ci doon naa ko wane sànq boo ko ko joxee traitement bi mm, vingt cinq lay nekk. Mhm. daanaka bu ko jëlee benn semaine lay la koy jël traitement bi hémorroïde bi tàqali kook moom. Mhm. bu dee rab nag moom mm, daanaka man nañ koo traité ci une semaine lañ ko koy traité moom it mhm. rab. une semaine lañ koy traité mu tàqale ko moom ndax rab jamono ji dafa sonal nit ñi ndax rab moom moo lay jàpp ba tëj say bunti wërsëg. marab moom la ñuy wax saytaane ba tëj say bunti wërsëg ba nga xam ni foo dugg doo doo fa am ndam nga xam ni lépp looy def da nga cee da ngay gis koo xam ni yéen ñaar da ngeen di ànd yaa ko ëpp compétence. yaa ko ëpp lépp yaa ko gën a bu fekkoon ne si wàllum taar sax yaa ko dàq yaa ko sut lépp lu ñuy laaj ci ay qualité yaa ko ëpp waaye boo bu fee fenn ñuy tànn yow duñ la tànn. keneen la ñuy tànn moom la ñuy tànn. nga xam ne boo doon soxna sax da ngay gis ni li tax ji nit góor jigéen war a bëgg góor yëpp day na ci yow doo gis doo gis kenn ku la bëgg bu dee jigéen la li tax jigéen ñu war koo bëgg yépp day ne ci yow waaye benn góor du la bëgg wala ku la bëgg ku la bëgg ay ay ay ay ay fan yu néew ngeen am jafe-jafe nga xam ni dootu leen mën a dégg ndax si jàmm seen i kàddu day day day faral di juyoo lu bëree bëri. nga gis ni sax boo bu fekkente ne jàpp na la boo doon lijjanti carte d'identité nii mën ngaa lijjantee doog ñu bëri déposé doog ñu bëri waaye yow doo am mhm. ay këyit dalay jafe lool boo ba Europe sax nga fa di lijjanti ay këyit ci nga xamee ne yow mbir yi la jàpp nan la mhm. nga gis a am mhm. demee ñu ñu la nga xam ne tey bu fekkente ni dal na la bu da ngay da ngay dem di nooblu nga gis koo xam na nga ko bëgg nga dem di ko nooblu pour mu bëgg la da a ciy def sa xaalis bu bëree bëri waaye ko noob du jàpp yow koo liggéey du jàpp te yow ku la liggéey nga gis ni <coughs> bu fekkente ne wàllum bayre la sax da ngay wut ay bayre di takk di sangu ni da bëgg am bayre waaye da ngay gis ni yow daal bayre bi moom amuñu ko na nga ko bëggee amuñu amuñu ko bu dee kaaraange la nga takk ba sonn bu dee ubbeekaay la lu ne nga def ko. Mhm. fekk yow saafara yi ngay jël di ko teg sa biir nekk rab bi nga àndal saa boo fa tegee mu dem yàq ko. Mhm. nga xam ni takk moom da ngay takk takk takk nga xam ni ku lay bettoon sax

waxuma la jege jege saafara si baat boobu néeg bu mu fanaan moo tax sëriñ si mati sëriñ dëgg saa buñ bindalee nit ko ami rab saafara pare xool la xam ne da nga ami rab baat boobu rek lañ koy tëjee hmm. buñ ko tëjee jox la ko bu la neexoon nga teg ko ci mbedd mi saa boo ko tegoon ci mbedd mi li wër mbedd am na solo ma xam naa fi may jeexalee muy wàllu ndoxu siti tamit nga xamante ni moo sonal ñu bari tamit Sénégal benn feebar bi la waaw ndoxum siti nag moom dafa doy waar mooy feebar bi nga xam ne mooy mooy ndayi feebar yi mm-hmm, mm-hmm. moom su la dalee moo lay indil hémorroïde moo lay indil maanaam. ballonnement ballonnement moo lay indil impuissance mën na laa indil sax impuissance boobu. Mm-hmm. ndax ndoxu siti dafa nekk loo xam ne dafa ki nga xam ni moom la dal rek moo ko mën a xam. Mm-hmm. ndax ndoxum siti moom muñ ko waxee. Mm-hmm. mañ nañ ne mooy noonu mooy noonu doomu aadama bi. mooy noonu doomu aadama bi. ndax saa la dalee rek li muy njëkk a def mooy dugg ci sa biir maanaam xalaayaa yi nga xam ni mooy mooy aar nit ki. Hmm. no globuline balaa yi nga xam ne mooy aar nit ki ci jàngoro yu bëree bëri moom lay ñëw ray ko bu ubbi bunt yi nga xam ne jàngoro bu ñëwati day dugg ci yow. Hmm. moo tax nga gis nit ki ndoxum siti bu ko ba gaana dikkal ko ne yaasu billah hmm. bu fekkente ne nag yow amoo xamoo dajee ko ko xam dëggantaan ndax nit ki li ne ci biiru yaramam mooy globulin douze ak globulin blanc globulin douze yi li ñu li ñu si air bi ne ci biiram te baaxut ñu koy génne ci bakkan muy mu doon nooy muy génn globulin blanc yi mooy li muy jariñ mooy feebar bu ñëw ñu dem xeex ak moom ray ko mu jeex. Hmm? nga xam ni benn toq deret bu ne cinq cinq millions globuline rouge mooy ci nekk mooy tax deret moom cosaanam dafa dafa zone. deret deret dëggantaan dafa zone moom la ñuy wax plasma waaye li ci globuline rouge yi bari moo tax nga mujj mujj gi day xonq te globuline rouge yooyu li ñu ciy jariñ mooy transfert nooy nga xam ne globuline rouge yooyu seenu dund matul euh, daanaka du passé vingt wala quarante huit yeneen yu bees ñëwaat léegi nag bu duggee moom góoru beneen rouge yi amu ci soxla waaye góoru beneen blanc yi lay rey ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex feebar ci biiru doomu aadama nga xam ne bu bu rayee góoru beneen blanc yëpp pare yow amatoo xam ne boo doxoon ci mbedd mi sax ab poussière sarax la poussière boobu mën nga see jaare mu indil la soj soj ma nga la leneen nga mujj gi soj moom ñu naan moom da daa sojoon rek daal di faatu hmm. fekk ni ay jàngoro ci biiram moo faatu te xamu ko léegi nag bala ngaa egg nit foofu bu fekkente ne yaa ngi yëg ci sa bopp ndoxum sit rek na ngay daw daal di dem ci ñu ko xam ñu fajal la ko. boo ko defut dalay indil ay jafe-jafe. d'accord am na solo moom laa dalaloon fii sama kër mu di ah, boroom kurus gi kenn dootu ko présenté ci réew mi ah, sëñ bi kontaan naa am naa mbégte ci dalal la fii sama kër. Mm-hmm. képp ko xam ne soxla nga ko numéro téléphone yaa ngi noonu daw ci rési bi. Mm-hmm. boo ko woowee rek incha allahu rabbi. ah mm-hmm. lépp loo xamante ni sa aajo te mu mën ko rek dina la ko fajal numéro téléphone yaa ngi noonu di daw ci service commercial bi. Ah, tey lan ngay tàggatoo ak lan ngay ñaanal soppe yi. waaw maa ngi leen di tàggatoo di leen ñaanal bu baax a baax. di ñaan suñu borom def jàmm ci réew mi ndax jàmm soxla nañ ko lool. wax yàlla ndax ndaw moom lu dul jàmm jiw ko jàmm mooy lépp. ñëpp la daraan wax ni nit kii lépp na ñaan jàmm ndax saa bu amul jàmm lépp loo jàppoon dañ ko bàyyi ba jàmm am. Mhm. jàmm moom mooy lépp. kon yéen ñoo ngi leen di ñaan di ñaan seen télé bi dem ba sut bépp télé ci réew bi. wax dëgg yàlla ndax man dama fi tàmm

suñu borom dina la ko jox di leen jox yeneen dig daje sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf